sëñ bi Mbakke xanaa di jéggalu rek ndax lii diis na lool ci ñun yëkkati la rek diis na lool ci ñun waaye nag pexe amut moo tax lu mu gën a gàtt rek mu gën ñi ma àndal ñi ñëpp ku ci nekk am yéene bëgg a wax sëñ Maxtaar mii nga xam ni day sa lépp nekk fee man nga xam ne daa mu sëñ Mamour mu sëñ Masamba sëñ Cheikh geye nga nalé ak sëñ djiliba ñom ñep euh ak njabot gi yëpp rek. ñom ñep ñep ñep ku ci ne da am yene dama xamni ni ñu mako ko defele sax mo gën ne bu gënoon yaatu <laughs> ñep bëgg ñew ndax jakarlo ci jëm ji rek te bëgguñu dara lu nga bëgg rek euh, euh, di di jema dak dak sëk bëgg ndax xamnañ ni sëk bëgg moy bëgguk Serigne Touba. yow amoo amoo amoo ñaari bëgg genn bëgg rek nga am muy sëriñ bi sëriñ bi nga bëgg nag am nga ko te di nga gën a dajeek moom waaw bu fekkee ni taalibe am na dara ci sëriñam te ñun sëriñ Tuubaa rek lañu am tubaa Tuubaa moomu ñu am nag ñoo ngi koy ñaan mu dimbali ñu ci sa jëmm ji ak ci sa toogaay bi ndax yaakaar yi jullit yëpp ci yow la ne Iya, dootul dootul yoonu murit sëriñ bi ëpp na foofu ëpp nga foofu li ñuy wax amirul muminin, ku la ko tudde wulit moom nga ndax amirul muminin, day atti diine atti àddina ku jaaxle ci àddina fii lay ñëw ci sa kippaar gi te nag suñu yaakaar ju tedd ja moo ko mas wax nee na lépp lay firiñ ci ko nga man ñëppit nag ci diine ji te mu yàgg te du tey sa toogaay bii kon toogaay booba rek lay firi ñun nag e, bu ñu waxee day ëpp wala mu mu am nu mu def ci ñun waaye day lii ma waxoon it dama koy tuub bëgg nga tuubal ma ko ndax yaa ni woon sama kilifa dama koy baag boppam bakook sans bopp te am na lu ma rëcc ba waxoon naa ko Cheikh Mouhamadul Bachir mii nga xam ne yaa ma boole woon ak moom liggéey te booba ba léegi luy doxal liggéey bi kanam rek waaye nag daa mel ni sañ sàmbarooma leen boole jikko mm-hmm. ndax gestuwul merul wérantewul xuloowul li mu bëgg mooy li nga bëgg rekk ak nu mu ko mën a fexe mu dal ci kawam ba nga am ko dina ko fexe ba nga am ko ñu nit ci loola la ñu tàpp rek bëgg nga bëgg rek ndax sa mbëgg xam nañu mooy bëggum sëriñ bi te mbëggum sëriñ bi mooy mbëggum suñu boroom li nga newon dafa jot ñu xam sëriñ bi xam na ñu ko xam nak mënesu ko xam waye man nañoo xam lu bari ci ci jëm ji ak saw doxalin ak ni nga mel ak ni nga ni nga réew mi di yaakaari ñepp nak du yaakaari mourid rek nak ëpp na fofu ma ni neel sëriñ bi bum ñu yërem ndax xamna naa sa yërmande gi ni nga yërmé taalibe yi ni nga yërmé julit yi waye mourid yi dañu ni dañu baña tayel te nga yërëm leen ba yërëmaande bi bëgg a ëpp ñu bëgg a def dara Mbàkke sant leen ndax sa njaboot gi yow rek la ñuy déglu balaa leneen a am ci ñoom yoon ndax njaboot boo ko liggéeyloowul bu leneen mën a am ci moom yoon yow rek lañuy déglu te loolu yow rek ka ko man nee naa sëñ bi sax wax na xëy na daa téléwul ni jox leen wala def leen nangam waaye bu dara amee mu ni maa ci def lii moo lay won ni bëgg na loolu waaye sa kàddu rek la nit ñi bëgg a dégg loo bëgg loo bëgg ñu def ko mbàkke bul xaar kenn loo bëgg ñu def ko te dañ koy dañ koy def ni nga ko bëggee yow rek lañ mu yow rek déglu loo bëgg rek ndaxte ak ruu moo ëpp jëmmi nit moo ëpp alalam te ruu gi nga moom kon bu ñu baax lii nga xam ne ñoo ko yor te yaa ñu ko jox muy dem fenn foo xam ne fii du la neex te boo wootee ñu ñu ñu jox la ko loolu rek la ñu bëgg yërmande gi Mbàkke na doon yërmande ak leneen waaye bu mu doon yërmande poos yi ak ñaq wi yër liggéey loo ñu laaj ñu ñu ñu ñu ñu indil la ko loolu yow rek la ñuy déglu loolu nag laay tuub ndaxte sëb sëriñ doo ko doo ko doo ko digal doo ko nu mu tuddati maa ngi koy tuub waaw ah ah alhamdulilah Mbacke alhamdulilah noonu la baaxee. alhamdulilah soññi rek la. waaw nee na soññi rek la. lu ci bari moo moo ma moo ma ci jiitu def ci xelam def ci itteem def ci fitamu rëy moo ma cay xiir lu ci bari ci lu demee noonu moo ma cay xiir man loolu man yàlla ma bind loolu jikko ma teg kenn waaye nag lu demee nii lépp ku ci mën a doon rek bu sottee rek moom moom moom moom moom mooy ki nga xam ne moo ko ci moom moom moo ko ci soññ bu baax a baax ci loolu la nga wax ne taalibe yi dañ leen di teg moom nag fa tabarakallah am na pësté bi am na fit bi waaw loolu waaye nag dafay jaaroo nekk ak kilifa itam nag waaw waaye waaye loolu lépp rek alhamdulilah ko waaye man soxla naa ko. yal na yàgg ah kon de alhamdulilah mbàkke waaw loolu mbàkke waaw eh, ñëpp xam nañ ko waaye fitam wii ak ni mu mel bu amut woon ku mel ni yow kilifa gu mel ni yow du fa yegg fitam wii ngay wax ak lii mu la yéene. bu amulun kilifa gu melni yow du ci yegg mukk ci adina xelam xalaatu ko yow la da nga bax rek di joxe li ngay joxe yow mi ci yow mi la joge rok ci mom rok ci man rok ci taalibe yep nak yow la rek de du kenn de Cheikh Ahmad bashir mi du mom du ma demba yow la te ko am kilifa gu mat kilifa lo meuna jefe jëfe lu dul na mom nga ko te it moom ñimewu ko waaw ni mu ko ñaké ñimé nak lañ ko ñaké ñimé ñun ñi dama ni liggéeyloo ñu say outils lañu say sordaar lañu kenn xajul ci sa liggéey bi lu dul yow noo ko bëggee ñu defe ko noonu noo ko bëggee rek euh, noo ko noo noo ko bëggee rek noo ko bëggee noonu lañ koy defee ndax yow Mbakke yaakaar yëpp dafa daju ci yow te murit yi dem nañu ba ba takkuwaat jeneen takku goo xam ne gii man xam naa ni mosuñoo jóg jóg nañu jógin woo xam ni sa toogaay bii rek ak sa fit wii rek ak sa ngor gu ak ak nii nga bëgg leen nu mu am lii maa ko maa le maa ko nu mu tuddatee loolu sëñ bi dimbali ñu rek mbakke waxal li nga bëgg rek noo ko bëggee ñu defe ko noonu waaw ndax yow day kenn du xalaat mukk jël dara di xalaat lenn lu dul na yegg fi yow rek moom la eh, eh, jafe-jafe bi ñuy am mooy mu mën a yegg si ci yow te it nga ñaanal ñu nag sëriñ bi dimbali ñu ba ñu gën koo mën a liggéeyal waaw loolu di ñaanal ñu lool rek ñun amatuñu genn ñaan ndax lu mat a ñaan sëñ bi ñaan na ko. fii ñu rek. loolu rek la bëgg. ñun ñëpp lenn lañu bëgg nekk ci ci yow rek nañ dégg sa baat ak sa kàddu rek nañ déglu rek ndaxte mbàkke fii nga egg ak ñun sori na lool te yaakaaruñ ko woon ndax jamono li fi dox bari na lool at yi ñu génn li fi dox bari na lool waaye bu dul woon yow lu bari lu ay nag Serigne Touba du ju mukk Mbàkke kon ñuy ñaan nga yàgg fi te wér te ñu di nga dimbali ñu nag ndax liggéey bi li fi des li ëpp solo mooy sab li ci ëpp solo mooy nga nefi rek nefe suñu kanam rek ndax yow Mbàkke koo nefi kanamam du rëcc du rëccale du ragal du yaafus du tàyyel te loolu la sëñ bi bëgg te yow am benn bëgg-bëgg nga am mooy li sëñ bi bëgg rek Mbàkke xoolal ni nga dekkalee xasida yi sëñ Tuubaa yi mel ni démb lañ koy doogu bind xoolal ni nga ci xiire taalibe yi rek ak nii nga xamee ni ku ci nekk ngi takku ba bi may dugg ci oto bi di ñëw nit ñaa ngi may dab ni ma mbaa demagoo mbaa nangam nangam ma leen déedéet lii kat day am lu fi nekk loo xam ne lii waaye sëñ bi kat liñ ko bëgg liggéeyal du dindi am ndox fii du tàng ndox di sànni sëñ bi daa am ab liggéey boo xam ne bii moo koy liggéeyal boppam kuy ñëw fekk ko ci ñu takku nekk fi kanamam mu ne ci suñu kanam def ñu nag ay jumtukaayam ndax ñun sëriñ Touba bi ñu yàllay sàkk sëriñ Touba tax mu sàkk ju te ay sëriñ Touba. kon Mbàkke dimbali ñu liggéeyloo ñu loo bëgg ñu def ko ndax yow wóolu nañ la xam nañ ni luñ la jox sëñ Touba lañ ko jox. lii nga wax ci sëñ Amadou Bachir mii wax ko ci njabootu sëñ Touba gii ci yow mii la ne ndaxte dañu ni bu bu tegalee bool jekkee bool ba jiitu la. kon Mbacke ñoo ngi yemale foofu kàddu gi ndax guddi na am na ñu ñaawanteegu rek waaw jërëjëf Mbacke waaw. deux cent vingt six millions. Hmm? million ñaar fukk ak juróom ñaari téeméeri million. ñaari téeméeri ak ñaar fukk ak juróom-benn. deux cent vingt six million ah. dégg moo ko taxatoon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci ndigalu sëriñ bi dañuy yëkkatee kaddu yi xam naa kaddu gi sax xaw naa suufe ndax dañoo bàyyi ko ci ndigal lu mu yéenoon ci yëngatu maam Cheikh Ibrahima Fall fa lañ bàyyi ko ñëw fii ku ñuy ñaana sëriñ bu baax mu yàgg mu gën fee yàgg loolu te ànd ak wér ndax li sëñ mbàkk yu seere rek mooy mooy yéeg-yéegu xolu taalibe yëpp te gëm na gëm na itam bëggu sëriñ ndax keroog ba xew-xew bi xewee sëriñ bi fekk naa ko ci xaal bu kawe ci yërmaane ju am ci nit ñi ba attana jël alalam jëpp sax jël ko def ko ci liggéey bi loola nag kon day mel ne lii nga waxaat fii léegi mooy yëgeeku taalibe yi ndax ñi fi jaar ñëpp loolu la ñu wax ndax dikkut bi màggal Tuubaa gi bëgg a jëmoo bi ndox mi taa woo nga ma bis mel ne ko xaalu dama nañu sëñ bi dimbali joxe ndigal ñun taalibe yi ñuy liggéey dëkk bi defar assainissement bi kàddoom képp la ñuy diglu loolu jip na màggal Tuubaa kon bu yàlla defee xew-xew ba mu amee keroog ba mu agsee baat bi ma sëñ bi njëkk a wax mooy lii kat doontul lu ma lu mën a xaar dama ko bëgg a tàmbali kuy ñuy fekk ma ci kon loolu fekk nga ci sëñ bi kon nag mu ngi lay sant bu baax ndax xam na xam na sa xol ndax sa digg moom yàgg xam na ci yow lépp xam na sa lépp suñ Tuubaa rek looy def rek lam lam la seere loon rek ne man ngaa bu boo ko mënoon mboolem luy àll ci àdduna nga dajale ko liggéeyal ko suñ Tuubaa loolu doy na sëkk seere ba ñu ubbi ma saali gi lam moo yóbbante woon ne la naa la wax ne mii ñëw indaale leen ngërëmu Sëñ Tuubaa loolu amul dara lu ñu ci mën a dolliwaat. loolu ñaanal la li li nga ko bëgg a te parce que yéene moom ndax naalikat bari na tëri na sumb yi rëy na bari na lool yi ci kon nag nii nga waxee ku ko dégg dal na mu xel te xam ne foofu taal bi Sëñ Tuubaa yëpp nekk kon jërul guddal ndax sëñ bi daay yendu ci daayira yi tey man xam naa sax yërëm laa tax waxtu yi xaw naa métti te it dañ ko war a sakkanal bu baax moo tax jotaay bi lu mu gën a gàtt rek moo ci gën te Sëriñ Tuubaa moom wax wax ju wax ju bari amut solo li ci am solo mooy jëf ji rek jëf ji rek ci am solo te gis na ko li mu la waxal bopp bopp mi dégg nga ko nee na la xam na xam na ne xam nga ko ndax xam nga ne mënta teg suñ noonu la ko yàlla bindee wax naa ko barki démb rek suñ mënta teg kenn dara noonu la ko yàlla bindee waaye na xam na li ko war itam ci kon na seen xel dal bu baax <laughs> boo ko gis rek na nga xam ne sa aajo faju na te dégg dégg ngeen bi mu wax léegi nee na suñ bii nii ñu dégg doo kon amut lu ñu wax mu ñaan amiin